jëmm jooju nag di Cheikh Moussa Cissé Darou la tay euh Seydina ndax nga ñu defal Natalou, cheikh bi li tax mbokku téléspectateurs yi ñu jukki ki ko dafa ni référence la té jamono dañuy wax né jikko yi dañoo de wax mu né jikko yi jikko yi jikko yi jikko mooy dañu gestuwul sunu gannaaw ndax bu nu gestoo sunu gannaaw bu nu ak wala ñu xool sax ci sunu kanam dana nu xam fu ñu war a teg sunu tànk ndax max ñu baax ñi nga xam ñoo fi nekkoon te nekkatuñ fi am na yoon wuñ ñu xàllal yoon bu ñu ci awee dana nu yëgg fa nu war a yëgg waaye mag ñooñu dañ fee bàyyi itam njaboot gu baax goo xam ne nii fa seen i waajur tegoon seen tànk ñoom fa la ñu teg seen tànk ku ci mel ni kii ñuy waxtaane tey di Cheikh Moussa Cissé Ndiamé Darou ci la bokk kan mooy Cheikh Moussa Cissé Ndiamé Darou waaw ñu ngi sant bu baax di rafetlu bu baax nit ñu ko laajee Cheikh Moussa Cissé njàmme daaru dafay doomi Maam Mor Xoreja Cissé Maam Mor waa Saalum la waa Luubaa la waaw ah, waa Luubaa la ñi xam ginnaaw kafrin diggante Luubaa ak Njaaw foofu lañ dëkk Maam Mor Xoreja Cissé moom mooy mooy baayam mhm. kooka moo demoon wuy ji Sëñ Tubaa bam demee ba wujj sëñ Tuubaa ba sëñ Tuubaa defar ko yeewi ko mu delluwaat ci ay mbokkam ba nga xamee ne nag dem na ci ay mbokkam nag ba sëñ Tuubaa defar na ko ba noppi ci moom te defar booba def ci ku ñuy wax sëñ Amadou Fa Jama a jébalu ci sëñ Tuubaa kuréel bi njëkk moo cay fukkeel ba bi Maam Mor Xoroj ñëwee jébalu ci sëñ Tuubaa moom la ko booleel mm-hmm. kooku moo tëri bi Maam Mor Xoroj Siise ba mat sëñ Tuubaa woo ko def ci moom la muy def ci moom ne ko demal toog jox ko kaamil alxuraan. ne ko bul liggéey. danaa la boole ñu la liggéeyal. bul liggéey danaa la boole ñu la liggéeyal moom maa moo xool ci sëñ Tuubaa moo ko wax loolu. <laughs> loola dem na ba am mu njibbi ci ay mbokkam. Uh-huh. toogal fa sëñ Tuubaa. Uh-huh. nekk foofa nekk foofa nekk foofa di doxal yoonu murit uh-huh. ak coow yu bare bari kooku moo jur Cheikh Moussa Cissé. Cheikh Moussa nekk kenn ci ay doomam. koo xam ne li tax ci ba ñu di moy dafa ak bayam mhm. ndax xam nga murit deug deug mhm. xamul ki sama baaya ya. murit sëriñ la xam sëriñ la xam mhm. sa baye bu doone sa baye sax waye tok ci sisu borom xam-xam sisu nitu yalla do ko jàppeeti baye waye sëriñ nga koy jàppee Cheikh sa Cissé bi mu gënee see bay commencé yewu ci walu sahir dañ ko yobbu daara muy jangi ci nijaay bu ñox ci ba Cissé ca njaxate waye dafa toog ab diir jóge fa ba mu fa jógee dellu soit ci kër baayam parce que fekk na kër baayam ñu ngi tërbiya waate xam nga tërbiya ak njàng bokkul baayam mu ngi tërbiya mhm. yor ay laxasaay ñoo ko gëm topp ko te moom mu nga dem jàngi daara gannaaw yàlla teel na ko yee te yoonu murit yoonu baatin la mool bati ko bàyyi fa njàng ma dellu siwaat ñëw jaayante ak baayam ba mu jaayante ak baayam ba baayam gërëm ko yónni ko ci Sëñ Tuubaa jox ko gambu lem gambulem am na boo xam ne gëmbulem la ko jox am na boo xam ne gobu fas la ko jox mu yóbbul ko Sëñ Tuubaa keroog ba koy jox gëmbulem boobu fekk na bàyyi ji gërëm na ko kontaan na ci moom te boobu ay nijaayam a ngi fa mm-hmm. ay taalibe bàyyam yi ko mag ñu ngi fa waaye ku yàlla nar a rek mm-hmm. ak ku baax rek noona mu yónni ko ci Sëñ Tuubaa mu daj lam daj xam naa bu ko toppee du fi xaj mm-hmm. daj lam daj dam lañ daj jaar ci sëñ Moor Seck taq yi ba dëkk nekkoon njaarim jaar fa gisee ak Sëñ Tuubaa nee na keroog muy gisee ak Sëñ Tuubaa na kenn ñetteelu leen mu jox ko gambu lem bi mhm. bam ko joxe gambu lem bi wax ne ko bàyyi ko jox ko lettre bu ko bayam joxoon fek ci lettre bi mhm. Mamour Khoureja def na ci ne ko ki sama dom lu te geureum nako waye li mata dem ci mom na xeeb naa ci sama bop am nañu ne seigne touba ciap na ci lem gi sax jep ci gémmiñ gi bamu mu yoon ciap dugal ci gémmiñam moom Cheikh Moussa Cissé dal li bindat lettre jox ko lettre ba lam ca wax mamour Momar Khoureja sa dom ji dana ci def ba def ci lu kawé sa mu nekk ak baayam nekk ak baayam bu baayam génn àddina ba mu génnee àddina amoon na mag bu mu nekkoon muy sëñ Insa waaye taaliba yu bari dañ yees woon ci moom ndax murit loolu la xam boo gisatul sa sëriñ da ngay yeeslu ji taaliba yu bari di fàq di yeeslu ci moom waaye loolu sëriñu aada sëriñ boo xam ne sa baay moo fi jóge rek nga toog mhm. loolu sëriñu aada la du sëriñu xam-xam loolu bari na fi lool ginnaaw gi nag xakk saa mu am lu ko feeñu fekk mu sanc dëkk bu ñoo foto ko Touba Saloum tubaa saalum Saloum. Mmh, Touba Saloum waaw. Mmh. murit moom yëfu murit rek lay def. Mmh, ba mu sancee dëkk ba fa la nekk fa la nekk ab diir mu xëy wax waa dëkk ba mu moo ko sancoon ay taalibeem nekk fa ay taalibe baayam. mu ngi xëy génn dëkk ba bàyyi leen fi ñëpp si waat daaru daaru kër Mor Xoroji ci ci ginnaaw pas yi baayam moo ko sancoon ci atum 1900 mu ñëpp si waat fa tëju fa juróom-ñaari at ba mu fa tëjoo juróom-ñaari at daal di xëy génn daal ne àgg naa ci yàlla ba mën caa àggale jaam ku ma jox sa bopp te bàyyi ma sa bopp danaa la yóbbu ci yàlla ba nga yëg ko hmm. bu ñuy tudd Cheikh Moussa Cissé hmm. tey loolu rek a tax loolu rek a tax nag loolu mu woote ak loolu mu xam ne képp waaye waaye Mamour Khourédia am nañu mu ko bokkaloon Sëñ Tuubaa am nañu mu ko bokkeel waaye li tax ñu seppi ko ci nag hmm. mooy loolu mu waxta woote ko waaw euh, moom euh, Cheikh Moussa Cissé mu woote Cheikh Moussa Cissé li mu woote mooy àgg ci yàlla kaay leen ma yóbbu leen ci yàlla defar doomu aadama doomu aadama yi waaw yóbbu ci yàlla c'est ça. waaw Seydina euh, dañuy faral di dégg yàlla yàlla. yàlla yàlla yi euh, ñu bari euh, xamuñu lan moo wund yàlla yàlla. am na sax ay taalibe murit yoo xam ne yaakaar nañ ne boo ne yàlla yàlla laa rek da génn nga ci yoonu murit te yàlla yàlla yi di ay murit yàlla yàlla moom mooy lan. waaw bëri na bët bu ñuy xoolee. Mhm. bu dul niñ mel. waaye danay faral di wax mbokki taalibe neen ku ñu yëpp daf ñoo sori. boo seetloo ñuy wax ñëpp wala nekk ci rajo yi wala ci tele yi di wax mhm. soo gis ko ci woo yàlla yàlla toog moom mhm. baa nga dem ba taaru toog ak kilifa yi Cheikh Moussa Cissé bi mu wàccee ci baayam mhm. ci sëñ Basiru la dem liggéey sëñ Basiru ba am ngërëmam ca toolee ci buleel sëñ Basiru Mbàkke ne ko Moussa laggal ku la ces ma dagg ay tànkam sëñ Basiru Mbàkke wax na ko ko kon kooku ban daraja la war a am hmm. mu jóge fa yeesu sëñ Fàllu hmm. loolu yëpp lu nekk mënuñ ci jaar a leeral waaye lu nekk am na mënuñ ko mën a leeralee hmm. ba ñëw ci sëñ sëñ Saliou bi mu njëkkee dëgg tànkam Saloum mhm. Cheikh Moussa moo ko yóbbu mboolem fu taalibe sëñ Touba nekk ci Saloum mhm. Cheikh Moussa Cissé moo ko fa yóbbu mhm. nekk moom fukki fan ak juróom ci benn néeg boo xam ne ñoo koy bokk fanaan bàyyi laat bi mu toogee addiya bi njëkk a jot ci wàllu mbay bàyyi laat mu toogee ci jal bi addiya bi mu jot ci wàllu mbay Cheikh Moussa Cissé moo ko jox moo tax bàyyi laat daan wax ne lii mooy sama taawu liggéeyal sëñ Touba ci wàllu mbay nee na addiya ji ko Cheikh saa jox mooy taaw bàyyi laat sol na yëre summi ko yóbbante ko Cheikh Moussa. Hmm. jox ko ko ne ko sol ko boo ko solee dugg ci sa mbooloo ku la gis yaram araam na safara. bàyyi laat toggaloo na ay ñam ci Touba te du benn yoon du ñaari yoon. Hmm. yeb ko ci oto bu def ci ay taalibe dem na ne leen yóbbu leen ko sëñ Moussa. kon ki dara la. dëgg la kooku mooy sëriñu yàlla yàlla yi. kooku mooy sëriñu yàlla li ko indi foo ko dégg taalibe Cheikh Moussa Cissé la. waaw ah, yàlla yàlla foo ko dégg rek. taalibe Cheikh Moussa Cissé la euh, li ko andi. Uh-huh. mooy ca xelkom la. xelkom xelkom mm-hmm. ba seigne salou di santiane ñu toj ko Cheikh Moussa mm-hmm. yeble boobu seigne Moustapha basirou lettre yi ñew mom mo koy jàllale mm-hmm. ci Saloum Cheikh Moussa jot lettre am waaj ak mboolooyam dem xelkom buñu buñ ba liggéey bi wacc talibé yi tok di waxtaan ci yalla ndax Cheikh Moussa xam lu dul yalla waxtaan gogu ñu daan waxtaan ci yalla nak nit ñi leen daan déglu ah, naan ñi yalla rek yalla rek yalla ah, rek yalla rek lolu mo indi turu yalla yalla yi lolu benn la ci man ñaaral ñaaral bi moy yàlla yàlla gisul lu yàlla xamul lu yàlla wéttaloo ko yàlla motax bat biñ téye tamoy batu la ilaha illa allah wane na la xam nga tur yàlla bo jël mën naa am boo ne yaa raxmaanu xam tur yàlla waye nit ko am man day da ngay dugg ci bir tur bi يا رحيم نونو يا عزيز نونو waaye boo jëlee laa ilaha illa كين mënu ko bokk يالا كين kenn mënu ko bokk ak موتاخ ويتال يالا يالا ويتال yàlla وا wéetal la waaw waaw yéen خيو taxawaay Euh, yoonu murid yi lu ci mel ni gàmm màggal ak euh, yooyu ndax euh, ni ci taalibe yi taxawee noonu la ci yàlla yàlla yi taxawee ay jullit lañ mhm. ay doomu jullit lañ mhm. Cheikh Moussa jullit la ba noppi mhm. balaa ngay doon murid da ngay doon jullit ba noppi dëgg la ci lu mooy ko am liimaan matal ponk yi am lislaam matal ponk yi lixsaan nga matal ponk yi loolu mooy jullit ba noppi kenn du xëy bokk ci tariixa am sëriñ te doonoo jullit dëgg la da def yëfu jullit ba noppi <laughs> dëgg naa dëgg waaye nag nit du dëñ mukk di sàkku ndollal mhm. sàkku ndollal moo tax ñu wuti sëriñ dëgg la sëriñu tariixa topp wuñ ko ngir mën a julli ak jàng téere bi mhm. ba ñuy jógee ca kër gi jàng nañ téere bi mhm. xam nañ farata ak sunna sëriñu tariixa yi li ñu leen toppee mooy ñu yóbbu ñu ci yàlla bu ñu mënta yóbbu ci yàlla ñu bàyyi ñu seeti ku ñu yóbbu ci yàlla lii mooy coow li su ko defee nag xakka sa Cheikh saa bi mu dellu see moom loolu bi mu ñëwee loolu la wootee waaye daf ko woote teg ko ci Sëriñ Tuubaa moom la doon woote ndax Cheikh Ibra Fall wan na ko dëgg la su ko defee nag loola mooy dox ñi muy woo it ay doomu jullit lañ mm-hmm. te ci woowu leen ci mbiru boppam Cheikh Moussa amul yëfu boppam mm-hmm. Cheikh Moussa doon Sëriñ Tuubaa xàlloon am ku ñuy wax Aliou ku baax Aliou Ngouti borom xam-xam la bu baax bu mat secret waaw dafa mos a ñëw ci Cheikh Moussa laaj sa yoon bi wan yoon la boobu coow li bari na Cheikh Moussa ne ko man ci yoonu Sëriñ Tuubaa laa ne loolu leer mu ko Sëriñ Tuubaa amul yoon mm-hmm. xàll bi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam xàlloon ca la jaar ba ci yàgg mu ne ko Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam amul yoon yoon bi yàllaa ko rëdd ne nii la ñëpp ci lañ war a jaar ku bëgg a def rek jaar su ko defee nag loola ca lañ ne ay jul lañ ay doomu jul lañ mm-hmm. màggal dañ koy dem mm-hmm. c'est ça mm-hmm. murid day dem màggal mu day jàng xasaay mu day bëgg su bëgg suñ tubaab <laughs> ak di suñ tubaab santaane loolu ku ko def murid nga ku ko deful doo murid loolu nag kenn jiitu wuñu ci bari na ku ñuy wax la nga wax da nga ñoo sori rek waaye jege wooñu boo ñu jege woon da xam ne mu dëgg la sax bàcc buñ ko euh, firee étymologiquement mooy ki nga xam ne nii rek euh, moo jëm ci yàlla euh, la réere nag la ca topp na mu réere ñu ñu réere ko ba tax nag ñu mel ni dañ ñoo ber dëgg la ber googu moom lañ beroon murid yi moo tax tey xanaa tey lañ nangu murid doon jullit moo tax moo tax jotaay bi lu am solo la ndax dañuy dégg yàlla yàlla yàlla yàlla rek ñu ñëw ci Cheikh Djibi Cheikh Djibi kon Cheikh Moussa ni ko waxee rek moom dafay defar ay doomu aadama wootee jëmale ci yàlla ni ko Serigne Touba euh, wootee euh, yéen it ngeen di ay taalibeem jaayante ak moom euh, sàkk bés boo xam ne nii yéen a ngi ko tuddee journée spirituelle journée spirituelle nag bu ma ko mënee tekki bés la boo xam ne nii la ko tax a jóg mooy defar ruu yi ngeen jàpp ko euh, fukki fan ak ñeent ci weeru janvier ci place de l'obélisque yaakaar naa ne euh, ku woote ne li tax may woote mooy defar ay ruu woo nga jullit yëpp képp ku na ashadu an laa ilaaha illallah ak sa jërëjëf euh, Père Lam maa ngi nuyuwaat téléspectateurs yi jàkkaarloo ñun di ñu seetaan di sant bu baax sëñ Samba ci leeral yu am solo yi di sant tam jëwriñ Seydina wax dëgg yàlla ci leeral yim leeral ci kan mooy Cheikh wajuram sëñ mar Khoroja Cissé moy kan su ko defee lim woté nga xamné ciow li yépp ñuy dégg mbirum yalla yalla lolu ko sabab mhm. ba bis bi ñu jubli dara taxul ñu woté ko ngir bëgg li ñun ñu ñott ci ñun tañ sori ko lool mhm. ñu leeral ko bañ xamné yalla yalla li rek la boo démé ci téré bu ñu wax xoqal tuwa dafa wax ni ñi bax dafa bokk ci seen mandarga hadithuhum zikru muhnin nafiyan mhm. la zikru hindin walub naa fil maqalat dañ sangi deug deug dëgg seen kàddu yàlla kese la ci biir ak ci biti su ko defee nag waxee yàlla googu ak waxtaanee ko bari gi mu bari ci waxi taalibe Cheikh Moussa yi loolu képp a tax ñu askanalee ko ne yàlla yàlla yaa ngi nii. Mhm. maanaam seen wax yàlla yàlla rek baatu yàlla yàlla loolu képp ko indi. waaye Cheikh Moussa ci boppam dafa waxoon ne sëriñ sëriñ Tuubaa ma ci doy liggéey mbay moom ma ci doy jaamu yàlla laay laa ilaaha ma ci mhm. doy. su ko defee defaru googu nga xam ne sëriñ boo jox sa bopp moom ngay xaar ci moom ndax ku ne xam na ne bi ngay ci ab tarixa bu dee julli yaa ngi koy def bu dee koor yaa ngi koy def asaka nañ koy defee lu ci nekk mën nga koo jàng ci téere yi mhm. mais boo demee ba loolu doyata la nga jël ab jëmm jaarale ko sa diggante ak sa borom mhm. la ko war mooy mu yóbbale ci yàlla rek mhm. te bu fekkee yegg ci yàlla am na dëgg-dëgg dafa am jeexital yu mu a jeexital ci yow su ko defee nag téere bii lay bi nga xam ne moo tënk loola mooy Masaalikul Jinaan moo tax tey du hasard biñ toogee fi di waxtaanee Masaalikul Jinaan muy jumaa ji yàlla na yàlla def mu yegg ak jàmm te Cheikh Moussa xam-xam bi nga xam ne moom la woote ñu ko wuyusi moom lañ ko wuyusee Masaalikul Jinaan la la ko daan layalee am na benn góor gu mos a bàyyi ko Touba ñëw di waxtaan ak moom bi mu waxtaan ak Cheikh Moussa Cheikh Moussa ne ko tawhid ñaar la kilifa gi ne ko tawhid benn la ndax ñu bari dañ jàpp ne tawhid daal mooy bi ñuy jàng ci téere bi rek Cheikh Moussa génnee Masaalikul Jinaan ne ko xoolal lii Sëñ Tuubaa wax ne fa tawhidu lil qismayni munqasimun fa saara tawhidayn mu ne ko tawhid xaaj nañ ko ci ñaari xaaj mhm. benn bi takkalum la ñaareel bi taaruf la takkalum gi mooy bi ñuy jàng ci téere yi yàlla aji jiisu la aji dégg la aji gis la limal la ko ba mu nekk ñaar fukki melo yoo xam ne suñ borom lañ koy askanale waaye beneen ba nga xam ne kenn du ko jàng mhm. boobu boo demee ci masalik Sëñ Tuubaa def ne fa mhm. samaru tahlili tawhidun sama waaye nag lil aarifina xaaluhu man alima meññantu baatu laa ilaha mooy daf lay jural tawhid bu kawe ngay wéetal sa borom bañ kaa bokkaaleeg dara waaye nag lil aarifina ñeel na ña nga xam ne ñoo xam seen borom su ko defee xam sa borom googu boo xoolee sëñ Tuubaa moom lañ ko toppe woon ba sëñ Moussa Ka ni sëñ Tuubaa di maanaam dex ku dem duy ku soo gën mes bu génnee xam boromam waaye da cee teg ne nag ku sàggan sànku faw te lab te doo duy doo set doo setal doo xam boromam mhm. kon lan mooy farlu mooy fexe ba jaarale sa diggante sa borom koo xam ne boo ko toppee ne sëñ Tuubaa defoon mag ña ci yóbbu leen ci yàlla ba yàlla ñor leen ci biir ak ci biti ñu def la loola su ko defee yàlla yàlla yi lii lañ def ci ñoom fu ñu toog di waxtaanee yàlla bañ ni yàlla yàlla yaa ngoo mm-hmm. gannaaw nag mbir mi dese naa leer ci ñu bari ñu ne nañ woote journée bu mag invité ci mbooleem yàlla yàlla yi ak képp koo xam ne dégg nga ci loo xam ne xamoo ko bu la neexee nga ñëw fekkee su ko su boobaa mm-hmm. dinañ xam ne kii mooy Cheikh Moussa lii la woote su ko defee nag yañ njot njott ca bokk ca di nga xam ne ñu ci boole la rek ni mel ci yoon yëpp tey man samay kàddu yi bopp dama ciy faral di wax ne mbooleem caaxaan yi ci réew mi buñ ci seppi loxo yi ñuy murit benn dootu ci xub dëgg la benn te dara war la ko dul umpale sëñ Tuubaa rek sagam nag nit moo mën a nekk ci caaxaanam nekk ci mooy yàllam loo xam ne sëriñ bi gërëmu ca dara hmm. mu bëgg ne moom mi ngi woote woo murit noonu la mënee am ci kuréel yëpp nag hmm. waaw noonu la mën a am ci kuréel yëpp waaye liy dëgg-dëgg yoonu murit ku ci nekk di ca dox buñ la xoolee dana feeñ ci sa kàddu feeñ ci sa jëf feeñ hmm. ci sa melo lenn lu ñuy xeeb ci biir ak ci biir doo ko feeñal ci wax ak jëf dëgg la Cheikh Moussa yit euh, kum jàpp ba bàyyi képp lay def ci yow hmm. lii lañ fas yéenee wane nag ci fukki hmm. fan ak ñeent ci weeru euh, janvier euh, jibi jërëjëf danañ dellu saat ci journée boobu muy journée spirituelle di journée boo xamee la ko tax a jóg mooy defaraat jikko yi Euh, defaraat euh, ruu yi maanaam mooy defaraat jikko yi rek. Mm. muy jikko yàqu yi nga xam ne dañuy wax ne lu yàqul moom moom ñoo ko yàq.